waxoon na dafa bind bataaxal waaye nangul nañ ko démission am ndax na ne ay euh, pour des raisons de santé euh, la wax ne wàllu wéeru yaramam donte ñu bëri ñu ngi doon avancé leneen waaye moom ci boppam moom euh, bàyyi mbili ji nanguloon avancé dara ci li nga xam ne moom mooy li waral mu tekki ndombal tànkam ci foofu nga xam ne moom la ñu ko tegoon ba tey nag kenn kumpa la nekk waaye ñëpp jàpp nañ ne moom mi nga xam ne moo ko jiite woon ñu ngi ko fa tegoon atum 1989 muy quitté jo toll woon ci soixante onze ans bu ne wàllu wér yaram moo taxoon mu euh, démissionné mën nañ ko ko nangul en tout cas juróon nay coow jamono jooju ndax tàmmuñu woon gis loolu ndax c'était la deuxième fois gannaaw euh, évêque bu euh, Kaolack bi très bien en tout cas fii la ñu koy ndar képpee suñu bés ba ba ba su fàttaliku yi nga mm, xamante ni euh, jot na fee jaar Mame Mbaye Ndiaye ñu àddu mm-hmm. nag ci euh, li nga xamante ni moom moo di suñu ramassis de l'actualité alors le Sénégal a enregistré hier son premier record de décès enregistré en 24 heures 29 décès pour parler justement du coronavirus te nag euh, cimetière Saint-Lazare bi ñu dendal moom dafa jugee ci ñett décès par jour ba 26 décès Mame Mbaye Ndiaye xam nga démb dafa am benn comédien bu wax nit ñi nit ñi di ko reetaan mu ne ñun daa mel dañoo puudar maanaam suy bale yooyu. Mm. jamono ji da nit ñi ni ñuy deewee parce que vingt neuf décès Euh, ci ci ci en une journée une semaine yi boo ko tàllalee nee nañu yegg nañu ci plus de cent décès euh, jamono ji fii ci réewum Sénégal looloo tax nit ñi ni ñuy suulee di dem ci cimetière yi dafay bari euh, suñu mbokk chrétiens yi nag ni ñu ko daan defee à chaque fois ñoom dañuy donner le bon exemple <laughs> xasuñu suñu mbokk jullit man jullit laa mm. mais xam nga ñun suñu ñun bu ñuy dëj moom dañ koy dëj ba mu mat sëkk bu ñuy dem cimetière yi mbooloo mu bari ñooy dem gunge néew bi mais ñoom cimetière Saint-Lazare mesure yu ñu jël moo di désormais kuy andi sa néew di ko denc war leen vingt cinq vingt cinq au maximum la ñuy nangu rek ñoom ñooy dugg ci kii bi euh, si euh, cimetière yi te nag doo leen fa def lu ëpp trente minutes. Mhm. doo leen fa def lu ëpp trente minutes da ngay ñëw ngeen suul daal di dem la sa des la li si des nag yéen yéenay nekk seen magu bopp boo leen demee seen i kër ku si nekk jël responsabilité moo xam da ngay woote téléphone nga jaal wala déet euh, bu ñuy fàttaliku nag bi ko corona di a ñëw xam nga ne protocole sanitaire dafa amoon. def naa noonu lañ ko tuddee woon. Mhm. néew yi bu ñu leen di suul. ñu ngi koy defee si hôpital ba désinfecté def lépp kees lañ Covid nga ñëw denc euh, bi ñu demee ba si Sénégal erreur bi nga xam ne moom la ñu def bi ñu xeexee corona ba ñu ne ñoo jël pay xaw ma seen gouvernement bi bàkku daal di nag relâchement daal di am protocole boobu amoon ñu daal di ko fiy dindi ngénte yi ñëwaat dëj yi ñëwaat gars bu ñuy suuli ji nu leen neex la ñuy suuli jee def seen délégation bu mat sëkk dem ci si cimetière yi la euh, euh, conséquence yaa ngi nekk nii corona bi ñëwaat na ak delta wam mooy variant bu bees bi di rey nit ñi kon delluwaat nañu si protocole bi nga xam ne moom la ñu andi woon au gouvernement bi imposé bu ko kenn waaye au moins sunu mbokki chrétien ni jël nañ matukaay yi nee nañu lii mooy mesure yi lii la ñuy respecté ku fay suul euh, bu leen weesu vingt cinq nit te bu leen fa def trente minutes ñu xool nag sunu mbokki jullit yi euh, ndax dinañ def pareil wala déet lu mu ci manti doon ku nekk na nekk sa magum bopp te xam ne corona baa ngi fi. Uh, professeur maa ngi ko doon wax ma ne euh, keroog dañoo toll ci jamono uh, na ku nekk jël responsabilité euh, mbas mi mi ngi fi Binta Ba feebar baa ngi fi euh, te nag bés bu ne ñu teg gët ci ñiy wàcc liggéey jaarale ko ci feebar gi kon nag mbir mi ànd nag politique àndut ak politique bëri na coow ñàkk naa coow de ma teg du ma du ma ci dugal sama loxo moo ci gën mooy dinaa ko moytu te ni muy dalalee sama xel noonu laa ko mën a moytoo askan bi war nañ gën a bàyyi xel. bu baax a baax li nga xamante ni moom moo di Covid 19 bi mais nag am na ñuy naan li leen gën a jaxase Mambaye et malheureusement polémique bi ci la bokk mooy que wax nañ fi delta euh, variant lambda. Mhm. juste avant le le variant delta. delta. ñu ne nañu variant lambda ñu dikkaat ñu ne ñu variant indien variant brésilien euh, variant sud-africain et ainsi de suite et à force on en vient au delta après les gens se demandent pourquoi autant de médiation sur le delta alors que où sont passés tous ces autres variants aujourd'hui voilà xam nga euh, mooy défaut de communication bi nga xam ne moom moo am parce que euh, état euh, état bu nekk ci ngay communiquer ah fii ci Sénégal peut-être dañ accès woon communication bi ci mesures barrières yi alors que euh, nit ñi amuñu bu baax da ngay jéggi rek si télé ñoom ñuy wax non euh, euh, te loolu liggéeyu normalement ñoom ñi yor cellule de communication bu am ministère ñoo waroon yor les scientifiques. Mhm. ñoo waroon yor li nga xam ne moom mooy communi ñoo waroon def communication mais les médias ñoo naan laan delta bi variant bi génn na si États-Unis variant bi moo am si Afrique du Sud nañu moytu ndax mën na dugg Sénégal amuñu benn idée amuñu benn information. Mhm. ci variant yooyu nan lay duggee ci réew mi agressivité bi mu am ci ci kii. variant delta la wax ne moo fi nekk jamono ji mhm. alors que ne foofu la ñu waroon accès li nga xam ne moom mooy information bi sensibilisation bi euh, va va vaccin yi fii la ñu toll ni vaccin bi contre delta bi la wala vaccin bi pour musal la ci variant tel la mhm. parce que ñun euh, ñun bi ñuy vacciné wu ñun man maa ngi jël Johnson and Johnson. Mhm. bi ñu may bi ñu Johnson and Johnson bi ñu koy génnee boobu Delta ñëwagul variant Delta amagul. Mhm. ndax Johnson and Johnson man na dara ci Delta bi xamuñu. Mhm. parce que bi ñuy def vaccin normalement dañu koy def ci microbe bu nga xam ne moo fi nekk instant bi maanaam instant bi fekkee man euh, euh, Delta moom ma dugg alors que maa maa ngi jël euh, vaccin Johnson and Johnson te vaccin Johnson and Johnson boobu bi ñu koy génne génne nañ ko lu yàgg. delta di doog a ñëw a ñëw est-ce que mën na dara ci variant delta bi. la question et la réponse pour waaw Mbaye mën na ko. mën na ko xam nga euh, buñ dañuy wax coronavirus. Mhm. Mhm. lan mooy loolu ça dire que couronne. corona mooy couronne. couronne yee bëree rek dafa mel ni dafa am karaw. Mhm. bëri ay kii dafa am karaw. ay jubbu voilà vaccin yépp liggéeyuñu ci li nekk ci xoolu cellule bi euh, euh, virus bi mais karaw bi lañu liggéey. te li ñu wax variant li ci gën a bari. ci biir lay changé soppeeku. Mm-hmm. mais karaw bi toujours mu ngi deseen di foofu moo la moo tax ñu ne coronavirus te du benn am na coronavirus un eh, ay sarcove un deux mille deux mille un deux mille yooyu bu mu amoon. Mm-hmm. donc vaccin yépp la plupart ci loolu la ñu sukkandiku. donc ça veut dire que su fekkee vacciné na la ba pare. Mm-hmm. Eh, karaw boobu la eh, kii organisme di anticorps yi di yàq. donc vrai virus bi bu ñëwee ñoom lu ñu xool lu ñu xool ci biir virus bi dañu xool karaw bi rek. Mm. bu ñu bu ñu yàqee karaw bi nag virus bi mënatul dugg ci cellule donc looloo tax en général même boo xoolee information yi nekk ci OMS wala yeneen scientifique yi publication yi ñu ne la ba léegi baax na mais bu demee nag ba soppeeku karaw boobu mm. mun nañu soppeeku vaccin yi mais tant que soppeewul euh, karaw yi amul benn problème te information bi tam am na mais suñu problème mooy lan ah. c'est que réew mi dafa bari ñoo xam ne ñu bari ñoo xam ne dañuy wax loo xam ne xamuñu ko mm. xam nga problème communication la c'est-à-dire boo nee léegi delta. Mhm. journal journaliste yëpp dañuy reprendre delta mais ça pas dire que yenn variant bi dañuy disparaître. Mhm. ñu ngi fii ba léegi. ñu ngi fii mais looloo gën a yomb pour mun a peut-être tiital nit yi pour ñu mun a def yenn euh, ñu mun a moytu yenn yi. on dit delta delta c'est du point de vue communicationnel mais information scientifique am na. très ñu nañu fexe nag ba dem ci ñi nga xam ne am nañu information yooyu. pour ñu jotal ñu parce que ñi nga xam ne dañ nekk fii di wax toujours vaccin nii la ñoom depuis le début lu ñu wax. ñu jël leen foofu. mais gis nañu tey ndax vaccin yi affaire bi dafay wàññeeku loolu Sénégal boo gisee 2,5 pour cent la woon ñoo doon dee. Mhm. instant bi ñuy dee ñi am coronavirus motul 1 pour cent donc ça veut dire que vaccin mu ngi def effet. man dem dem naa ci benn bërëbkaay bu ñu bu ñu vacciné nit mais pour le moment nit yi bousculé wuñu nit yi ñëwuñu vaccin vacciné wuñu donc loolu ci boppam foog ñu mesure barrière yi baax na. dafa gën a bari dafa gën a bari de ah. dafa gën a bari mais justement nit yi nag solution bi. li ñu ci xam waaw. mais de dafa gën a bari. waaw li ñu ci xam à instant bi scientifique yi li ñu ci xam ci affaire euh, mbas. mooy mesure barrière yi ak vacciné wu. Mhm. amul beneen pexe. très bien amul beneen pexe Binta Ba dafa mel ni ñoom euh, vaccin gi mën na mënalul bu baax a baax rey li nga xamante ni moom moo di coronavirus bi ci boppam waaye mën na koo euh, affaiblir ba bu yàggee néew di doole rek xëy na yàgg-yàgg mu daal di dee génn fi dem est-ce qu'il ne serait pas temps justement professeur d'acheter ou de de de planifier avec les plateaux de télé ñëw mhm. xool journalistes yi daal am une euh, émission euh, ou un magazine mmh. justement à la traçabilité sanitaire maanaam ñii nga xamante ni dañ leen vacciner coronavirus bi ci variant tel la ñu am ñu mën ko ràññee tant de nombre la bu ko defee dans la tête des gens y aura une traçabilité que ah variant euh, lambda mi ngi fii variant indien mi ngi fii variant brésilien mi ngi fii variant delta mi ngi fii mais euh, de nombre la gën a ràññee ci variant delta moo tax xëy na ça justifie euh, le tollé de la communication sur le variant euh, delta ah, ce serait bien d'avoir une habilité moi je pense que hmm. ñoom waay docteur euh, euh, pharmacien yi hmm. ak euh, Abdoulaye Diouf Sarr moom mi nekk seen ministre du tutelle war naa mën a saafonteeg ñoom bu ko defee ñoom ñu jottali askan wi jaarale ko ci taskatu xibaar yi parce que nous sommes les maîtres de la communication nous sommes nous-mêmes ces professionnels là qui savent comment placer un mot à sa place sans vexer sans frustrer ñoom ils essayent ils y arrivent pas est-ce qu'il ne serait pas temps maintenant de partager les responsabilités voilà Asma je pense que situation bi moo war a tax ñu multiplier les sorties ci euh, ministère de la santé et tout parce que interogation yi ñu am moom la askan bi am tey jii ku ci nekk ñi nga xamante ne jëloon nañ peut-être benn dose gisuñu beneen dose bi ñu war a jël à temps ñu ngi naan est-ce que période bi ñu toog est-ce que loolu dina amati effet donc autant d'interrogations